bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi nga xam ne noo bokk liggéey bi Cheikh Mouhamadou mii nga xam ne mooy yor baatu jottali ak sëñ sëñ Mouhamad Lo mii nga xam ne moom lañ dénkoon euh, euh, wattuk dëkk bi ñu ngi nii wax ji nag dafa war waaye ku sañoon booy wax wax ji am euh, wax bi wax wax waxu lislaam waxtu bu ne noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara boroomam ak yonent bi nga xam ni moo ko jox ndigal mu dem ci loolu ba tudde ba tudd jaamu bu yàlla kii la bi sëñ bi léppam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 wax na musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi nit seen borom wamma leen jëmale seen borom bind na it ba loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag gannaaw dogalu sa borom moo xam la muy dogal yoonu kenn nekku ci moo xam li li li li li war a def moo xam na mu koy defe moo xam li tax mu di ko def loolu lépp mu ngi ci yàlla amma jaam ñi nag ñi nga xam ne dañoo topp la lislaam digle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

يغلب الدم لم فينك تلو رك لنا لفينك كون نك لولو دغ لا فاو نو تامل تشان تشان لي واي لي شام سولو مودي ا أه. بيجو dëgg la ci lislaam la juddu ci ñoom Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi jox boppam sëñ saa sëñ Saaliwu kon waxoon naa ko njaboot gi muy Saaliwu xaali sëñ Xaadim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 وش لك اللي يسان اللي كويسن به تعلب بابلا كوخن بابلا جيخن كن لين خمني ما يخ ما يخو هو مبكو بكو سكان نكون أمنا شوال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 waaw sànni ci seen bi rek lu bon nag seen bi rek lu bon moom seen bi rek ku teggi ndigalal yàlla teggi ndigalal sëñ Tuubaa wàcc fa bëggu su bëggu suñu borom gi wàcc fa bëggu sëriñ bi gi ci yow dara kon nañu góorgóorlu soxna si fa ma jëkkee wax ak moom ca njaareem ca tamxarit ga wax na ba àggal wax ci ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko ba ma ko tontu dama ko ne yaa ko ma ne ko ma ne am na loo xam ne soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal ngeen la ñuy wéy ma ne ma ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu duñ tàggoo foofa rek laa ci yemoon booba bi del see fii yaatal naa wax ja lool ci bëgg a teqali dëgg ak fen kon de Ayda waxoon naa ko ni ko fii li mu bëgg seen bopp li mu li ñu bëgg suñu bopp rek moom la leen bëgg li mu bañal suñu bopp moom la leen di bañal loola toog na wax ko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 goudron ngi fi goudron bu yàgg ñëpp waaw ku bëgg a dem jaar ci mën ngaa dem mën ah, ngaa dem ama ku jaar nag fu la neex fital di def la neex loolu nekku ci yaag yàlla yaag sa bopp ak yàlla ak bis bañ ci ba ak ak ak sokuraas sa ak ak ak bàmmeel ba ba ba ngay bis bañ ci ba dara dara dara réew ci lépp lépp mi ngi ci kanam din di ñu nekk lépp ni ñuy gisee nii li ñuy gisee loola gën a leer foofu la gën a fese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 boo jubee mën a mën a mën a xam sëriñ bi boo jubee ci ngay mën a dundi sëriñ bi sëriñ bi dara du dundam dul yàlla rek nekk ci yàlla rek nekk ci yàlla rek nek, nekk ci yàlla rek moo di moo doon ab dundam loolu dëgg la xat ga sax doon koo sa xëyan waaye nag xam nan xam xam xam nan la xam nan yoon fa yoon boobu nu jaarloo xam nan ko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 وحينك دنو ور وي وي بن جاخلي ولا بن تيتانغي ولا بن نخر تي يون وي كوكو تي ام داغا خمول رك كوكو تي ام كوكو تي ام تي يون لو تي خلا داغا خمول رك داغا خمول رك واي سيغ بي لغييم بي كين منوكو ياق واخوما لا كو ياقو كا غينا ديفرو بو جولون تي جاخل سيغ دودو تي من دارا كين منوكو يالنا نوبي نتي واخوما لا نكو ياقو te yàqu gënal la ah loolu rek la yàqu moom ku ko def yaa ko yàqu daa neex daa neex waaye dëgg gaa ngi fi hmm? ah ah ku yà ku mu neex nag yàqu waaye yàgg yàlla yàgg sa bisu sukuraat yàgg sa bisu bàmmeel yàgg ñooy dem di barsàq ba ba ba bés ba nji ah, ba loolu loolu rek la loolu rek la nanu bu baax.